yow Nabou lu xew ñetti fan yaa ngi nii lekkoo naanoo di jooy di jooy wax ma lan mooy xew laa la wax. Eh, ay yaay dama am amu Nabou yaay ñàkk jom dëgg dëgg dëgg Nabou yaa bon Nabou yaay xaj Nabou yaay mbaam. ay eh, yaay tey moo ko dimbali ma xam <laughs> laa wax sa jooy seytaane yi jooy di maa ngi jooy deret wax ma nag kan moo la biiral ma lijjanti ko. salaamaaleykum sëñ bi na nga def. maak jàmm mère ci loolu nag yaa ngi jàmm. yaay mami moo biiral mami moo biiral. yaa ambu yow ndaba ko ma la biiral nga ne. xam <laughs> laa la wax yow yaa ma biiral yow mi yaa ma biiral laa la wax. ah yow yaa biiral sama doom abi baba ko ma naar yow te ngay xamal kan yow. mère yaa ngi tooñ de yaa ngi wax di ma tëfli. waaye yow mère xanaa mu tardé diwoo. yow sa yaram baa ngi kenn xamul lu muy nduru xaw ma dafa xees xaw ma dafa ñuul comme dama daa fëriñ. message bi nag kenn xamut lu muy nduru sa gémmiñ gi mu foroxo foroxo foroxo léegi nag nag sa doom ji nga xam ne daa doxo doxo doxo doxo ba jeexal ay tànkam ah ñëw nag man mi nga xam ne bagage su xale laa yor nga ne mën naa ko biiral man yow réew nga de yow lii bu nekkoon sa gërëfas ak ndey di nga ko tudd yow waaye nag na ba ma tooñ dama damaa nga wax ma yaa ko ëmbal wala ëmbaloo ko mère man xale laa au moins lu dul sept ans te man ay bagage su laa yor sa doom ji man dafa ma lu dul raay ak fóon yow yaa mën a gat yow nga xam ne sa bagage yi comme cour ya cour yow naa la trente mille bu ñu génnee ko jël cinq mille ma vingt cinq mille bii bébé li ma gëw ma ko gëw ma ko cinq mille francs ci benn jour li ma gëw ko moom. dëgg kay maa la ko may ndax daa am benn téléphone bu ma leboon vingt cinq moom laa bëgg a dem fay nii nii te borom nee na su ma ko fayut nii nii yóbbu ma police. ah déedéet police yow tamit bébé xaaral ma jóg léegi sangu ñu dem retiré ko nga fay ko kii daf ñàkk kersa. ah tey waa ji boor noonu may cinq mille francs nii di jaaxal na ma waa ku numéro may woo si. ça très bien ko kan la. waaw waaw ñun la waa orange dañ doon def loterie nga gagné trois cent mille francs ci sa compte orange money. waaw li ñu na de tey moom sama wërsëg dafa ñëw complètement trois cent mille francs maa gagné sama compte orange money yii yéen waa orange ngeen ku baax ngeen yéen moom ku baax ngeen góor ngeen te nit ñi moom war nañ leen gëm di leen sant. waaw sa compte orange money ñaata moo fa nekk. waaw actuellement nii trente mille francs moo nekk sama compte orange money. waaw léegi pour ñu envoyé ko léegi-léegi da nga jox sa code secret après ñu envoyé ko léegi-léegi pour nga xam ne da nga dem ko waaw jëla code bi code bi 3 ngay def 4 8 ak 7 yes yes waaw waaw code bi baax na léegi xoolal sa code ndax bi ñëw na waaw d'accord maa ngi koy xool léegi ndax 300 mille yi ñëw na sëñ bi kay maa ngi lay gërëm la sant yal na leen yàlla fay yéen ñoom ñu baax ngeen ñu gore ngeen yal na leen yàlla fay yéen may man lépp naa ay waay trois francs mu nekk sama compte trois francs ay man fi ma jëm ak juróomi junni waaju baax ji nga xam ne maa ko war delloo ay man fi ma ay man naa di kii nga xam ne bëri na wax mën naa kaste ay man fi ma jëm ay man fi ma jëm suba te ma dee ay waay ko may waaw sama copine yow yaa mën a bàyyi nii tey gisuma la billaay ndey maa ngi fi tey togg bi rek moo ma téye moo tax génnuma waaw baax na waaw ana waa ji bon gis naa koo dégg de kooku moo ngi fi waaye dafa naya nay ba yàqu chaque jour mu liggéey wàcce la 5000 francs mais kenn mënul lekk xaalisam ñaan naa ko fa sonn fa sonn fem yu ne regaju naa bii ñu naa def naa lu nekk tarxisu naa mais dara mayu ma dara déedéet ma sœur yow yaa jongewul waaye tey dinaa lekk ci moom 75000 francs toogal rek di ma déglu yoo xoolal taal télé bi rek toog seetaan waaw baax na maa lay déglu demal rek yow. <laughs> déet waaye lan moo xew mbaa jaamu gaawe ma. waa ji bon sama yaay tey daa daanu crise ñu dem hôpital médecin bi xool ko nee na dafa am cancer. <laughs> te fi mu nekk nii ordonnance soixante la nga bindal xaw ma fa laa koy waxee fi mu nekk loolu mu garaaw la di yow sa yaay sànq daje nag moom ci boutique bi mu jënd beurre <laughs> waaw bu mu ñëwee boutique ba la daanu bu mu ñëwee boutique ba la daanu crise allahu akbar loolu yéeme na de waaye danga may xaar ma dugg sama néeg jël xaalis après nga ñu dem ci médecin bi nga boole ma ak moom waxtaan moom déedéet ma lay sonal jox ma ko nii rek ma yóbbu ma dem jëndi ko jarul ma lay sonal bilaa jarul ma lay sonal yow entre exil waaye yow nday néew ma la nga dem taali reer yow yaa mën a dox xale bi soo ba léegi yaay xel dox rek di te maa ngi dem mat nat rom man laa la wax déet mais ana cancer bi ana waa hôpital lan cancer yu jàmm man de maa ngi sant yàlla bu baax a baax dara dalu ma yow yaa fen dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg yow yaa mën a fen yow nag yaa garaaw nag nag teral nga yow bu ma xool de bu ma xool ngay mel ni vampire yow soixante quinze mille francs moo tax ngay rey yaay nan am cancer bi ma la nee jàkk rek laa xam ne ngan du maami triant nga sa gerte fas bi nga mel dayu xaj yow nday nday yaa fi wax lu rëy lii yow nday man sa yaay jur jur la nday nga ne man nga wax dama cancer man ah di teg diil lay la xëy la xale bii waajal boon dimbali ma yow doo maye doo saraxe doo génne asaka yore alal bu dul jeex ngeen doo ci may kenn doo ci may dërëm waaw loolu moo tax ma ñu fii bëgg laa nax lekk ci dara au moins sax yow sa kanam gu sew gii di mel ni keccax sa baxatay fee del sa bakkan bii yow mën nga ma mbaraan yow. man moom dinaa la may 500 nga dem marché boo demee ngir yàlla soxna si sa greffage bi changé ko ñetti fan ni nii moom laa lay gis moom ngay këppoo mi ngi xasaw kutu kutu kutu mënatu la koo wax. eh dimbali ma laa wax am na lu gën a xasaw yow te doo ko wax man nag doo ma xas li yëpp nag sama xarit waxoon na ma ko su ma xamoon dama ñëw yow nekkal nii rek. waaye jugal fii waa yow sa karaw poqotaan na cokk baam <laughs> maa copine fee la ma fa jëlee du ma ko nettali kenn kenn sama lii de laay la mën a ndokk sax fa kana nekkoon lii waa ñii tey ban kaa lañ ma andil nii assemblée nationale un homme a mbéjee une femme ah lii ani femme buñ mbéj bi ak xale bu góor bu ko ngi nii waa sëñ bi nee nañ ma yow danga nga dem assemblée nationale di fa reyante di fa xeex ba maj fa benn femme bu am bu ëmb léegi dañu laaj loolu dëgg la wala dëgg waaw kay femme bi mbaa ko mbéj mbaa ko mbéj bu saf sax déet nga de sa baxi bakkan yu ngant lan moo tax nga wàcc waa femme dañ ko jox micro si biir assemblée nationale mu jël micro bi di ngañi suñuy sëriñ di wax lu jaarul yoon ma fekk ko fu mu toog nag mbéj ko nag mbéj sax saf sax sa kanam ngi di mel ni plateau mayonnaise yow xanaa xam nga ne que jigéen kenn du ko dóor jigéen boo ko fóonoo ko raayoo ko waroo yow sax kan moo la yóbbu ak loo fa assemblée loo yow da ngaa war dem marché bee teg fa sa poobar sa kaani sa nitatu di loolu nga war a def ndax leer na ma ne ñetti nga nii sangoo yaa ngi tasaw put sa dox ba ne ngënd nañ sa nopp yi rëy nañ sa gi di ma dund di ma saf nag bu forox. xam nga la laa bu ma la gisati assemblée laa la wax sa dox bu guddi bi di mel ni sàcc. waaw femme bi dama bëggoon xam ndax yow ba joon waaw waaw man lañ ba cay man mbëgg saf sax mbëgg méttee méttee waa d'accord waaye yow lan nga wax mbéj mbéj la ak mbéj bi nan nga ko dundee ak sa waa famille. waa man daal nangu naa wax naa lu ëpp nangu naa ko nangu naa wax naa lu ëpp mbéj nañ na mbéj bi nag dundee naa ko dund bu métti waaw ndax jooy naa dama amoon te amul mujj naa yàqu waaw sonn naa nag dama wax Sénégal dimbali nag waaw jigéen gi buñ ko raaj buñ ko dóor waaw. loolu la kay waa man damaa gis ne sa ngaam bi daa demee boor loolu est-ce que xool nañ ko. waa taay maa ngi fayu ci faju bi métti laa nekk nii nag maa ngi faju bu baax a baax ah d'accord yaa ngi faju ah loolu baax na mais yow damaa gis ne benn bëñ nga dese léegi nag nga def ba am yeneen bëñ yi. <laughs> waaw sëñ bi loolu moom xam naa ne métti moom métti na trop benn bëñ laa dese waaye maa ngi ñaan dimbal rek képp koo xam ne yaa ngi Sénégal rek nga dimbali ma ci ndax sonn naa trop. waaw loolu la kay mais sa lexu ndeyjoor bi daa nuuxu loolu mu demee noonu. <laughs> ah daa daanu ko pourtant seetlu ma ko ci nag seetlu ma ko ci moom non ba gëm safatoon noonu moom moo amoo benn problème wax dëgg yàlla. non yow maire bu am sens nga maire bu am sens nga comme que euh, sa lex yi rek ñoo nuuxu sa ñaam yi demee côté ak sa bakkan bi demee côté sa ñaari tuñ yi yëpp nuuxu a ah, loolu baax na sa benn nopp bi nag xam naa ne léegi mu dagg ndax boobu si boobu médecin yi médecin ñaw ko sinon day dagg benn yoon nga ñàkk bi nopp nag. papa papa dama ëmb. laa bisi. laa ëmb. ay papa baal ma dara jigéen ko wut ci man ba léegi damaa vierge papa ba léegi damaa vierge. waa léegi soo vierge bagage yi fan la ko jaarale. ay papa dama laa bañ teg gàcce loolu moo tax wax ko jaarale ko ci gémmiñ ma gars yi dama créer seen YouTube pour yéen bëggee bokk c'est simple dugal sama page TikTok nga cliquer ci petite di nga dem directement sama seen YouTube bi nga abonné wu. mère looy dox ba trois heures du matin tey nga dem tëdd xanaa xamoon léegi damaa dafa am hey gore gi sa yoon nekku ci man màgg tam kor kooj laa maa yaay dox ba trois heures du matin dégg nga ma lay wax sama soxla laay dox mère bëggal jàmm ramasse dafa am te pël yaa dëkk bi di wër nga dem tëdd trois heures du matin may daw de sama doom loolu sama yoon nekku ci man faale ma policier ragalu ma policier dégg nga lu ma la wax damay dox ba sama xol seet laal wax bu ma sonal nag waaye mais nga ne ragaloo policier yow ñu mais am nga fit de yëleeg ba la policier déggee nag dama ne ragalu ma benn policier laa wax te policier bu ci ñëw ñu dafa ndox ba mu neex ragalu ma ci kenn la naqari maa tey waaye yow yow maire la wax ci policier yi yow tey rek mer bi dee. yaabi pakama yaabi pakama yaabi. waa bi xanaa meme dafa dof wala dafa am problème bopp. feebar <laughs> feebar moom xanaa léegi la ko dal kii dara dal la ko day tappale li nga koy wax gën a day tapale <laughs> non sëñ bi da ngaa juum kii dafa feebar. ba ma jël ko yóbbu ko ci prison bi prison yi def dof yi bu fa nekkee du mën gaañ kenn soxna si yaa ma déggul sax de dama ne policiers yi dañoo baax dañoo goy waaw yéen a tax ñu am jàmm yéen daal ñu baax ngeen <laughs> kii moo mën a bébé envoyé naa la 30 000 bu ñu génnee nga retiré ko jël 5 000 jox ma 25 000 yi dégg nga lan bébé li ma gëm ma ko gëm ma ko 5000 francs ci benn jour li ma gëm ma ko moom. dëgg kay maa ko may ndax daa benn téléphone bu ma leboon 25 000 moom laa bëgg a dem fay nii nii te borom nee na su ma ko fayut nii nii yóbbu ma police. ah déedéet police yow tamit bébé xaaral ma jóg léegi sangu ñu dem retiré ko nga fay ko kii daf ñàkk kersa. Ah, Wah, kok nyuruh Maiwo ini? allo waaw soxna si. ça va très bien kooku kan la. waaw waaw ñun la waa orange dañ doon def loterie nga gagné trois cent mille francs sa compte orange money. waaw li neex na de tey moom sama wërsëg dafa ñëw complètement trois cent mille francs maa gagné sama compte orange money yii yéen waa orange ngeen ku baax ngeen yéen moom ku baax ngeen góor ngeen te nit ñi moom war nañ di leen sant. waaw sa compte orange money ñaata moo fa nekk. waa actuellement ni 30 000 francs moo nekk sama compte Orange Money waaw léegi pour ñu envoyé ko léegi-léegi da nga ma jox sa code secret après ñu envoyé ko léegi-léegi pour nga xam ne da nga ko waa jëla code bi bi 3 ngay def 4 8 ak 7 yes yes waaw waaw code bi baax na léegi xoolal sa compte xaaj bi ñëw na waaw d'accord maa ngi koy xool léegi ndax 300 ñëw na sëñ bi kay maa ngi la sant yal na leen yàlla fay yéen ñoom ñu baax ngeen ñu gore ngeen yal na leen yàlla fay yéen trois francs mu nekk sama compte trois francs ay man fu jëm ak juróomi junni waaju baax ji nga xam ne ko war a delloo ay man fu ma ay man naa waay kii nga xam ne bëri wax mën naa kaste ay man fu jëm ay man fu ma jëm suba te rek ma dee ay waay ko may dimbali waa sama copine yow yaa mën a bàyyi nii tey yow gisuma la billaay ndey maa ngi tey togg bi rek moo ma téye moo tax génnuma waa baax na waa ana waa ji bon gis naa koo dégg de kooku moo ngi fi waaye dafa naya nay ba yàqu chaque jour mu liggéey wàcce la 5000 francs mais kenn mënul lekk xaalisam ñaan naa ko ba sonn façon fem yu ne regaju naa biiñu naa def naa lu nekk tarxisu naa mais dara mayu ma dara déedéet ma sœur yow yaa jongewul waaye tey dinaa lekk ci moom 75000 francs toogal rek di ma déglu yoo xoolal taal télé bi rek toog seetaan waaw baax na maa lay déglu demal rek yow. <laughs> déet waaye lan moo xew mbaa jaamu gaawe ma. waa ji bon sama yaay tey daa xëy suba tey daanu crise ñu dem hôpital médecin bi xool ko nee dafa am cancer. <laughs> te fi mu nekk nii ordonnance soixante la nga bindal xuma fa laa koy waxee fi mu nekk nii loolu mu garaaw la di yow sa yaay sànq dajee nag moom ci boutique bi mu jënd bër <laughs> waaw bu mu ñëwee boutique ba la daanu bu mu ñëwee boutique ba la daanu crise allahu akbar loolu yéeme na de waaye léegi may xaar ma dugg sama néeg jël xaalis après nga ñu dem ci médecin bi nga boole ma ak moom waxtaan ak moom déedéet jaruma lay sonal jox ma ko nii rek ma yóbbu ma jënd ko jaruma lay sonal bi laa jaruma lay sonal yow entre exil waaye nday néew ma na nga dem taali reer yow yaa mën a dox xale bi soo la léegi yaay xel dox rek di dox te maa ngi dem mat nat rom man laa la déet mais ana cancer bi ana waa hôpital lan cancer u jàmm man de maa ngi ni sant yàlla bu baax a baax dara ma yow yaa mën na fen dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg yow yaa mën na fen yow nag yaa garaaw nag yow nag teral nga yow bu ma xool de bu ma xool ngay mel ni vampire yow soixante quinze mille francs moo tax ngay rey sa yaay nan am cancer bi ma la nee jàkk rek laa xam ne nga du maami triant nga sa gerte fas bi nga mel dayu xaj. <laughs> yow nday nday yaa fi wax lu lii yow nday man sa yaay jur jur la nday nga ne man nga wax damaa cancer man ah di teg diil léegi la xëy la xale bii waajal boon dimbali ma yow doo maye doo saraxe doo génne asaka yore alal gu dul jeex ngeen doo ci may kenn doo ci may dërëm waaw loolu moo tax ma ñëw fii bëgg laa nax lekk ci dara au moins sax yow sa kanam gu sew di mel ni keccax sa baqa tey dal si sa bakkan bii yow mën nga ma mbaraan yow man moom dinaa la may cinq cent nga dem marché boo demee ngir yàlla soxna si sacrifice bi changé ko ñetti fan nga nii moom laa lay gis moom ngay këppoo mi ngi xasaw xutu xutu xutu mënut la koo wax <laughs> eh dimbali ma laa wax am na lu gën a xasaw ci yow te doo ko wax man nag doo ma xas li nag sama xarit waxoon na ma ko su ma xamante ma ñëw yow nekkal nii rek waaye jugal fii waa yow sa karaw poqotaan na cokk baam <laughs> yow maa copine fee la ma fa jële du ma ko nettali kenn kenn sama àdduna lii de laay la mën a ndokk sama fa kana nekkut lii waaru naa de bi ma ñëwee Touba ba léegi gisuma benn client jaayuma ndox jaayuma gerte jaayuma këriñ. salaamaaleykum. maaleykum salaam soxna si. bi dimbali ma. boo amee toilette dama dama abal dama bëgg dem ma ngir yàlla damaa ñambal fi mu nekk eh, si fii la xanaa gisoo luñ bind si dem si ñu jaay douche. ay waay sëñ bi dimbali ma rek du fa yàgg dimbali ma rek. douche 3000 la. waaw d'accord actuellement que la ma fay ko baax na man kii na dem rek waaw soxna si yow xanaa nan nga xëy ndekkee yii doxat de amul fenn nag laa la wax allahu akbar yii doxat soxna si génnal génnal génnal yow say xëy na pour bu at na ko génnal génnal mais ma tuuti maa ngi génnal allah salaamaaleykum bi dimbali ma yoroo fii toilette baa daga tuur ndox dimbali ma ngir yàlla déedéet yow tuuroo ndox da ngay wax ma dëgg rek. waa loolu la kay dimbali ma ngir maa sonn fu mu bu fekkee da ngaa bëgg a am na ay temps cinq minutes trois mille la dix minutes quatre mille la quinze minutes cinq mille la yaay nag fekkee arrangé dala bu arrangé baax na bu la arrangé wul ko waaye soxna si mënoo génne fii daa mu bëgg a réer a xaar. dimbali ma yow dimbali ma xanaa nekk damaa fay sama xaalis. benn doxat doxatu nit ay doxatu ñaar rek laa fiy dégg. dimbali ma laa ba sama temps bi jeex. waaw sëñ bi ci loolu nekk doo may ma tur ndox mi nekk damaa ñambale sonn naa trop. waaye sëñ bi loo lekk xanaa ay tuñu gëlëm nga doon lekk. si doxat de mën naa ko soo gis. waaye nag sama douche bi nag daa am ay heure am na 5 minutes am na 10 minutes 10 minutes nag moo am te 10 minutes 30 minutes la boo fayee léegi-léegi dem pour boo fayul léegi-léegi nga jàpp takk sëñ bi dimbali ma 30 minutes ma oo ma ko jàpp ci te damaa soxla fu mu nekk sama bopp foog ma dem douche dimbali ma ngir yàlla déedéet loolu mënu ma ko 30 minutes la nga dem douche mënu ko nga bàyyi. wuy <laughs> <laughs> yaay wuy kii daane sama restaurant bi ay fu ma jëm ay kii daane sama biir restaurant bi ma jëm salaamaaleykum waa sëñ bi doo may ma tur ndox dama yàkkamti de. waaw d'accord amul problème tur ndox rek ngay def toilette baa ngi ne. sëñ bi waat naa ko ci sama gën ak baay booy génn ñi dem police yow nga ñëw nga da ngay tur ndox ma may la après nga dugg di puub booy génn ñi dem police yow. waaye bébé soo ba léegi la lay woo du yaa waxoon tey dañu dem restaurant mais gaaw loolu lay xaar ah bon yaa ngi si bopp koñ bi waaw maa ngi xaar d'accord. waaw bébé kan moo la wat soo bi dafa nice bii moom Sadio Mané kese laa koy may. yee moom bébé li nga wax dëgg la kay waa ci loo nekk yaa ngi jàmm yaa ngi gis bu jot restaurant bi léegi mu tëj nañ dem damaa waa d'accord yow loo bëgg rek yàlla nay jàmm ay waay sama gaynde gis nga yow doo seen morom yàlla gën a boo gën leen jantal gën leen yor xaalis man yow laa choisir sama ren xol yaay sama sokolaate sëñ bi ak soxna si dal leen ak jàmm fii mooy restaurant wu dayu mbaam restaurant dayu mbaam nag lekkal ba nan ba waa sëñ bi merci waay restaurant bi na rafet na macha d'accord léegi lu ngeen bëgg añee maan lu ngeen di commandé euh, ma xool bébé yow commandeel commandeel loo commandé rek baax na waa sëñ bi da nga ñu ñaari plate benn bi nga def ci cere meew beneen bi nga def ci fonde déedéet bébé jóge suñu kër ñëw ba fii restaurant bu rafet bii aw oh, ma lan la may commandé lu dul cere ak meew waa chéri bul wax loolu man tey sama poche yu bariwul tey léegi commandeel yow sëñ bi pardon da nga ñu indil euh, plat benn bi nga def ko poulet complet ak euh, ñaari butéelu boisson bu fekkente ne am nga fruit nga def ci pomme ak euh, banana quelques orange yooyu noonu fekkee raisin am na nag moom moo may gën a parce que xam nga rek dama bëgg lekk digéré wu digéré wu raisin bi dégg nga fekk am na rek maa ngi lay xaar. <laughs> alhamdulilah rabbil alamin lekk naa ba suur suur restaurant bi neex na mais kii ba mën togg nag kii mën na waaw sëñ bi baal ma léegi li yëpp ñaata la ñaata la xaalis bi yëpp. waaw femme bi li mu commandé yëpp poulet complet beeg fruits yi yeeg boisson yëpp boo ko boolee yëpp cinquante mille la. léegi man xaaral wàññi la ci fukki dërëm rek. waaw d'accord fii amul ay toilettes ah ta ma a tuur ndox de. waaw da ngay ubbi bunt bu xonq bee rek da ngay gis bi. waaw bébé da nga may ma dem toilette te ñëw ah actuellement dama ñambale moo tax. waaw d'accord maa lay xaar chéri eh soxna si déglu ma fii ki nga àndaloon daw na <laughs> jar na ci toilette ba xaw fa aw yow nag yaa fi nekk nag te yaa lekk sama poulet dama bëgg na fay ma sama cinquante mille léegi léegi wala ma jëflante koog yow. la laa ilaaha illa yow eh, ma ci gàtt laa la wax sama kat bi ne <laughs> dama ne ki nga àndaloon na sama xaas yaa ma koy fay. ay man yàqu naa di ay man fu ma jëm. ay man nga xam ne dërëm ñoruma ko <laughs> ma ko maa ngi nii xiifa taxoon ma woo ko téléphone pour mu ñëw dina ma lu ma lekk man soxla si du ma sa morom du ma sa morom te da nga fay sama xaalis nii rek ngeen def dugg ci restaurant jàmbur yi di fen rek di fen rek di gar rek di duul yow bi nga xam ne yoroo gat yoroo dërëm looy commandé ay poulet kii bi mu la commandé laloo ci rek meew bi mën na faa yem sama xaalis na ko fay bëgguma wax nag ma jëm sëñ bi de maa ngi ne yoruma dërëm bi laax na danga may danga wala danga may rendi boog am laa la wax gis nga sama fayul sa greffage bi laay jël jaay ko fay ci plat bi. <laughs> def loolu bu def loolu yow tamit nag bu topp sa xol baal ma rek maa juum laas ma xamoon ne gat kat la du ma fi ñëw xam laa la wax greffage bi laay jël. laa <laughs> <laughs> ilaha illallah kon yow da nga watul dal nii. ay sa bi dimbale ma ngir yàlla delloo ma gërëm bi dimbale ma ngir yàlla. yow sa ndar bu set bii xam nga lan la yëgal nag ni nga tey na mujj tey sama sa tànk moo gisee di sama restaurant bi dëgg la ma la wax nag. lii de du jàmm oto daal kenn mënu ko am tey. waa mais fan nga jëm. rond-point ba rond-point ba laa jëm. waa chauffeur fii nga doon boy bi ñaata la. waa 300 la mère 300 la. 300 loolu kañ la nekk 300 laa ilaaha illallah loolu mënu nekk moom. mère comprendre naa la sax mais léegi rond point bi 300 la de ndax carburant bi moo cher. dama ne la fii ak restaurant bi fukki dërëm kese la waaw fukki dërëm laa ma sa paas nag. yow mère tamit nag jam xam na ne léegi fii restaurant bi 300 la léegi nag yow xale bu jigéen bi waxuma ak yow gënal sama wax sa lay waxal dégg nga ma la wax wax ko nag. fukki dërëm laa xam ci paas te moom laa mos a paas te moom laay paas. waaw mère léegi garaawul boo jox ma wax di jeex dama fukki dërëm la paas laa wax kii nga rompo bi fukki dërëm la fukki dërëm lay paas. yow nag mère ñëpp xam na ne fi restaurant bi 300 la te doo ko fay 300 ya dañuy dem yow ki wàññi la gis nga yow du ma nag yow du ma sa morom man ak sa ndey la sa kanam gu réegi di mel ni potu ndaa. <laughs> waaw mère léegi garaawul. léegi jëlal paas ma may la loolu amul benn problème may paas déedéet gis nga yow yaa ngi def sa kanam gi ne pat du accident génn ci laa la wax <laughs> dama ne la fukki dërëm laa lay fay saraxu ma la ko ñaan ma la ko dama la koy fay ba mu mat waaw dama la koy fay ba mu mat laa la wax ah yow nag mère bëri nga histoire de bëri nga histoire nag moom waaye chauffeur yow su ma bëri histoire ngay tudd yow ah su ma bëri histoire ngay tudd yow léegi mu leer yow léegi tey mu leer xaaral kooku Ibrahima maa ngi nii ci oto bi chauffeur bi lu ne def na ma ko moom ak ñi mu àndal xas nañ ma daggal nañ ma saaga ndey lu ne def nañ ma ko agressé nañ ma wuy agressé nañ ma woo agressé nañ ma. agressé waaye mère ka ma la fi agressé yow waaw waaw yéen a ma agressé laay tey yam ngeen client bu nga dul jëkkale tey. yow eh yaa agressé sama yaay yow. waaw maa ko agressé maa tey. yow loo nga may tontu yow loo nga may tontu. hee maa agressé sa yaay maa tay laa la wax yii am na problème nag kii dam da dang karatika de billaay solo si moo neex rek ñëw su bundu nan ay fer lay jaay su bëgg jaay fer doom ca xaj si ça yow sunu buntu kër nga jaay sa lu bon lii gone gi demal nga fooyi lii di pour yow sa baay la moo ko tax a jóg. ii yow oose nga de sa gémmiñ gu frox yow xanaa ay fer maam kooku ngay jaay. hey gone gi man du ma sa morom yii fer xamal ko sa baay moo ko xam mais du yaw <laughs> may wax muy insister. te nga dem parc aan pourtant golo yi bëgg nañ say xeer cuuraay de waa yow dem nga wala nooxóor man ay eh, da loobe ku ma xamul fii ci Sénégal yaa ngi may dégg du sa morom nag dama la fay ñuus ba ngay bëgg a dee eh. yow mii say xeetu faar wow koŋ ak say yax mel ni client yow mën nga maa door yow gis nga yow da ngaa réew te gone gu réew lu mu dégg rek lay dégg gis nga man sa baay dañuy génn looloo tax ma ñëw fii jaay bëgg ma gis ma xoolaale ma mais man cuuraay may jaay xaw ma ko sax loolu la tax a jóg ah bon yaa wax lii yow pare nga de yow nag yaa pare waaw waaw sa ma ñor moom laa bëgg moom laa xemem laa naqari dëgg la xam nga sama dafa bëgg golo ak yow mii sa kanam gu maase di mel ni lu ñu paase xam na dalaa gis rek yaakaar la golo